ànd ak yéen ci question yi nga xam ne wàcc na fi bu ko defee suñu kéem dalay kàttan luñ ci xam tontu ko lu ci leer ñu xam ne yàlla la waaye lu ci lënt rek suñu matériel ak suñu kàttu xam la hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim mbokk mi dafay laaj mu ne ndax naafile dafa bokk ci condition yu ñuy tëralal nit ki pour mu woor wala déet ba xam ndax su naafilewut dana koor wala du du du woor subhanaka allahuma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu hakim ñuy xamal mbokk moom ak mboolem ñuy siibar rek ne naafile du farata nekkul condition boo xam ne dañ koy tegal nit ki ne ko force danga koy def pour koor gi mën a wér bal naafile dafa nekk sunna comme nuñ ko xamee waaye it sunna la boo xam ne tënkuwul ci weer koor kese bëgg nañ nit ki fu mu toll muy naafile dafa fekk ne kay weeru koor bu ñëwee dañ koy gën a bëgg comme niñ ko jàngee ci sunna ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam weeru koor bu ñëwaan dafay yoraat benn xar-xaram ak salafu saalih niñ daan taxawoo weeru koor moo tax lu mel ni weeru koor bu ñëwee ñu bëgg boo doon naafile benn nga yokk ko def ko ñett ba ñeent ba juróom lillahi alhamdu wa loolu mooy li nga xam ne moo ci am waaye mantu tere woor kenn su fekkee tey danga am ngàntay naafile waaye am nga wéru pour woor suba waaye wooral naafile gi moom pour yokk tiyaab la rek waaye jotee da koor gi dara salaamaaleykum beneen bi kii dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafay togg dem ba mu yàgg mu soxla woo xam ndax bu bi mu bëgg am na ko ci togg bi wala déet muy xool maanaam muy ñam ndax saf na xorom ak wala yooyu léegi mu doon laajte ndax loolu dafay yàqu koor wala déet ñam lu mel ni euh, ñam lu ma lumu rek ci bëccëgu weeru koor kooku dañ koo sib ci mazhabu ma Malik nekkul loo xam ne dafay yàqu koor boo ko defee waaye nag dafay fekk ne li ngay ñam sa sa làmmiñ bi la yem gannaaw bi nga ko tegee sa làmmiñ xool ndax saf na wala safut ba loolu kii ba mu leer la nga daal di ko bi su boobaa loolu yàqu koor soo ko defee su fekkee ki nga xam ne nag dafay togg te moom pour mu xam ndax affaire yi limité wu na wala déet ci ñam rek loo ko mën a xamee te amul kenn ku ko mën a xoolal kooku mën naa mos su ko defee waaye nag na yem ci làmmiñam na fexe ba bu mu jàll su yemee ci làmmiñam mu yàbbi ko kooku yàqul kooram wallaahi alhamdulilah beneen bi kii dafay laaj nee na dafa war a tukki muy laajte ndax mën naa ñàkk a ci tukki mi ak ndax dafay laaj distance tabaarakallahu nit ki suy tukki mën naa ñàkk a woor boobu muy tukki waaye na fekk tukki ma nekk tukki moo xam ne du tukki mooy yàlla beneen ba it mooy distance bi maximum na yegg ci 70 kilomètres loolu su amee kii tukki nekk tukki mooy yàlla su bu ko defee su yéenee ñàkk woor mën naa ñàkk woor waaye nag na xam ne bis boobu après da koy fay moom laa xool ne in kuntum safarin in kuntum ala ba nu mu ko waxati ñëw na ci ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar su fekkee da ngeen a am gànta mooy lu mel ni feebar walla ngeen nekk ci yoon di tukki fa iddatun min ayaamin mën ngeen a ñàkk a woor waaye ba yeneen jamono kon fa lillahi alhamdu shukur sooy tukki mën nga ñàkk a woor bis boobu waaye soo yeggee continuer waaye bu dee nag ki nga xam ne nag moom tey chaque jour moom du jug ci yoon bi tukkikat la kooku moom mën naa continuer wooram ndax moom mu tukkee mu ñàkk tukki weer koor ak ñàkk weer koor ci tukki la koy fekk tout temps kooku kon mën naa continuer di woor rek moo gën ci moom beneen bi muy laaj diggante ñaari way dencante ah lan lañ leen may ci bëccëgu weeru koor walilahi alhamdu wa shukru ñaari way dencante ci bëccëgu weeru koor li nga xam ne tey borom xam-xam yi wax nañ ko ci li wóor ba wóor mooy su fekkee nga xam ne ñoom ñaar su ñuy ànd di foo ci bëccëgu weeru koor wóor na lañ wóor na leen ne mën nañoo mucc ci dem ba ku ci nekk jëndee mëniyu wala machu su boobaa loolu dara nekkul ci maanaam ñuy foo ci bëccëgu weeru koor waaye loolu nag dañ la ciy tërlal condition mooy su ko wóoree ne tey jii kat foo bii muy foo ak soxnaam du leen wàññi dara. waaye su ko wóoree nag su xamul ndax fa bi mën na ko jural jénnee bànneex yëg yëg bànneex ba mu jénnee machu wala jénnee mën yu boobaa dañ koy aaye aaye loolu nag kat téyel sa bopp ci diiru bëccëgu weeru koor su fekkee nag moom tey dëgër na bopp bay foog soxnaam ci bëccëgu weeru koor ba mën yu jénn ci moom moo xam ku mënt doon ci ñoom ñaar su lislaam day wax ne ñooñu dañuy fay bis boobu waaye danañ kafaar ndax dañoo dagg te tey ko dañoo def loo xamante ni day yàq koor te ñoo ko tey te dañ ne képp koo xamante ni dangaa def lu yàq koor te tey ko danga fay bis boobu waaye danga kafaar kon ñaari way dencante kenn terewul leen ñi foo ci bëccëgu weeru koor waaye su fekkee nag wóolu nañ seen bopp lañu wax mais maanaam dara du ci juddoo waaye su fekkee leneen mën na cee juddoo kooku li gën mooy ñu bàyyi ko balaa leneen di leen di fekk loo xam ne dana leen doon àtte bi sax tegu seen kaw asalaamaaleykum